tey même ñu bokk APR ñu ci naxul seen bopp xam nañu Ousmane Sonko am na discours bu cohérent loolu yéen xam ngeen ko te Macky Sall ma toog te pale bu moo la gën a xam. waaw dama wax loolu. waaw rek man sama xama xalaat rek laay jox. Mhm. boo paree ñu bàyyi ak yi ñooy tànn li ma li imam bi wax yenn na maanaam man du ma wax ak politicien nee naa man damay wax ak askan wi. Mhm. li tax tey Ousmane ko nekk député yaa ngi dégg. Mhm. élection jot mu am 15 pour cent. ci parti boo xam ne matul ju matul matul matul juróomi at loolu sa waay kuy utiliser violence doo ko am ñaata parti ñoo fi nekkoon avant Ousmane Sonko am na ñoom kenn déggatu leen am na ci ñoo xam ne ñu ngi fi woon kenn seen tur kenn déggatu ko kon ku toog naan Ousmane Sonko am na mérite wala amul mérite loolu dañ lay bàyyi ak Sénégalais yi ñu jugé la yaa ngi dégg man dama bokk ci ñu gëm ni am na mérite te dama koy wax fu ma toll di ko assumer te su ma toogoon ak Macky Sall dinaa ko wax nii ma koy wax parce que bu dul dara yi dafa am parcours kon buñ bëggee jël ay nit rek jox leen ay média ñuy acharné wu ci benn nit da ngeen di perte seen temps ci loolu hmm. loolu du ci liggéeyal dara Macky Sall au contraire Sénégal yi dañuy gën a dël ci yéen c'est important parce que Sénégal dafa changé wax nga ko sànq moo frère nee Sénégal dafa changé Sénégal dafa changé am beneen génération boo xam ne ñëpp a jàng ku wax ñu déglu la boo jàngee histoire xam ni képp ku mës a jóg pour soppi li fi nekk mu ne dañ ko dégg Serigne Touba lu tax ñu exilé ko dafa jógoon pour soppi li fi nekk Cheikh Anta lu tax turam des ci histoire dafa jógoon pour soppi li fi nekk kon ñu jàng te ay boroomi xam-xam xam nañ ni Sonko li ko coow li ko topp yëpp mooy dafa jóg pour soppi li fi nekk te luñ ko teg keneen kuñ ko tegoon daw nga bu yàgg